li si yéene kaay yi ku doon nalaw na nga yeewu de ndax Cheikh Hadji bu Soumaré ba réeroon xëy na feeñ loolu la yéene kaay xëyee tey ubbi l'observateur premier ministre bu Sénégal ba woon di Cheikh Hadji bu Soumaré de ab bataaxal la bind kii di président Macky Sall di ko laaj ay laaj yu doy waar naan ko ndax fa nga jël xaalis bu takk bu tolloog douze millions d'euros maanaam juróom-ñaari milliards yu tekk juróom-ñeenti téeméeri million ci suñu koppar jox kii di Marie Le bu France ndax kat l'observateur mi ngi naan keroog bi président Macky Sall dalalee kii di Marie Le Pen cooru bari la fa andi te coow loolu kat day gën di yokkoo gannaaw lettre bi nga xam ne Cheikh Hadjibou Soumaré bind na ko kii du président Macky Sall sampal ko ci ay laaju jégg dayoo bés bi la journal Cheikh Hadjibou Soumaré de mi ngi tiiñal président Macky Sall li ma koy laaj mooy ndax fa nga may Marie Le Pen sept milliards yu tekk juróom-ñeenti téeméeri million ci suñu koppar yéeni kaay bi naan laaj bi jëral laaj kay mooy fan la Cheikh bu Soumaré teg laaj yi muy laaj président Macky Sall Birame Faye bu APR mi ngi ci yéene kaay bi mi ngi naan Cheikh Hadjibou Soumaré de ay wax rek la bëgg ndax fa fàtte ko kenn waxatut ci mbiram lu mu jëm loole de la bëgg a tax sulliwaat ay mbiram dikk ci langue politique gi foo bëgg a dekkilaat looloo tax mu wax li mu wax Biram Faye mi ngi naan lu dul ab livre le président Macky Sall jox kii di Marine Le Pen bu mu fa ñëwee wal fajiri quotidien bind ci xëtam mu njëkk naana coowal huit milliards de jolleeti na ci suñu réew Sénégal la tribune Sénégal kay mooy république boo xam ne du duna milliard bu ñu fi sulli nekk lu ñuy lijjanti beneen dal di tikkuwaat ndax fan yu ñu génn kii di Bougane Gueye Dadi mu ngi yéebaane quatre vingt milliards yu ñu sàkkal pexe mu doon koppar bu waroon a dem ca trésor gisuñu fa lenn le soleil naan kii di président Macky Sall mi ngi nangu ay ñaan ki rek la woon ba ñu fay ubbi xew-xewu diine di daaka bu Medina Gunaas journal ba xëyee ko boole ko ak kàddu yu xalif bu Medina Gunaas naan président Macky Sall yal na ko yàlla kàttanal ba mu mën a mëtal yéeneem ci Sénégal les échos nañu moom kay sant na ko gërëm na ko xamal ko ne ko liggéey dëgg nga fi def ci fukki at yi nga def fii ci bopp réew bi amee ca Medina Gunaas la tribunal bokk na ci ay villages yi nga xam ne ci lëndam leen doon dund courant ba yegg na fa le mandat nañu agence sénégalaise électrification rurale di ASER moo fa jaar njiital ASER di Baba Diallo di xam ne dugal nañu courant ci juróom benn fukk village yu nekk ca Kolda am yeneen ñeent fukk village yi nga xam ne courant ba dina fa yegg yeneen mooy lii di téeméeri village am lii di courant ñu wax ci leneen ci coowal Ousmane Sonko ak coowal troisième mandat ak ci parrainage bi nga xam ne Cheikh Oumar Sy nee na ñàkk bokk Ousmane Ousmane Sonko ci élection présidentielle moo nar a andi fitna ju rëy fii ci suñum réew Sénégal Cheikh Oumar Sy ne Ousmane Sonko de xamuma ko te musuma koo gis waaye lu am ba des nga bëgg ak nga bañ bés bu ñu ko teree ci élection présidentielle yi ñu jëm dina indi fitna ju rëy ci suñu gaal ndax dina andi ay jàmmaarloo ci diggante takk der yi ak farandoori Ousmane Sonko di Pastef yi Cheikh Oumar Sy naan ànduma ci benn yoon ci limitation mandat yi ñu teg ci bopp Sénégal waaye nag leneen xeex moo di parrainage bi mooy bokk ak kan moo dul bokk ci élection présidentielle yu ñu dëdmal vox populi naan professeur Cheikh Ahmed Diagne samp na ndëndëm ci élection présidentielle yu ñu jëm ndax moom professeur démb la amal jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi di wax bëgg-bëggam ak yéeneem ci réew mi ak nan la bëgg a yoree réew mi ëllëg moom professeur leeral na lépp lu waral candidature ma ci ay argument yu ma ko teg le mandat na keneen ku ñu samp ngir mu nekk candidat ci gàkku ndax mu ngi naan waxu troisième mandat président Macky de moom laa bëgg mu teg ci suuf enquête naa na jamono jooja de président Macky Sall mi ngi ci ay tournée économique ma nga ca dëkk yi nga xam ne fa ko ñàkkoon bëgg caa tegaat loxo benn par benn ubbi l'observateur mi ngi naan benn dorog mi ngi bàyyeekoo États-Unis dikk fii ci Ndakaaru mu ngi fii def ay yàqu-yàqu ak i ñaawteef yu baree bari yéene kaay bi ne am na ñaari nit yu nekk ci loxo loxoy yoon libération naan ca Ndar géej musiba naaru laay daal moo fa am ndax benn xale bu jigéen di jaaykat benn xale bu góor mu jaaree fa ñàkk bakkanam dee ak lu mënta am daal yan yal ñu yàlla defal jàmm